asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara bu baax euh, seen mbokk sëriñ Moustapha Bousso Abdou Samad ñuy indi tuuti rek ci ab jàngat boo xam ne dan ma envoyé ñeenti audio yoo xam ne day wax ci problème maanaam maa ur rahmati mi nga xam ne euh, ki ko jiite woon di Serigne Cheikh Aliou Mbacke daf cee démissionné bi ma jàngatee vidéo yi nag maanaam sama jàngatu bopp man maa u rahmati am na ci lu ma ci jot a xam xam nga nit ñi il faut ñu xam ne ñàkk jaxasoog njiit yi teewut a xam information yi ndax njiit lu ci nekk am na ñu topp ci sa ginnaaw te ñu topp ci sa ginnaaw. am nañ ay wóolare ci biir dëkk bi ci am na ci ñoo xam ne yàlla kese kese kese kese moo tax ñuy def ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci gisatuñ ca yàlla jooja dañuy daal di pare ca loola ca buñ ca paree danañ xamal mbooleem taalibe Serigne Touba yi nga xam ne dañuy siifur action yu mel noonu nga xam ne day dox ci mbirum Touba danañ leen leeral lan moo tax ñu bàyyi kuréel booba ak lan moo ca nekk ay tappale ak lan moo ca nekk ngir yàlla bu ko defee. ci la nit ñi di xamee li xew ci réew mi ndax rajo yeeg tele yi ñu ngi fi waxtu wu nekk nit ñi di leen jàpp di diglu ay xibaar ci xibaar yenn wax yëpp ay xibaar yu leer lay doon yoo xam ne euh, bu leerutoon du ñemee toog ci ab télé àddina bépp leen seetaan wala ay rajo di ko wax kon na nit ñi bàyyi bu nit ñi wax ñaan la da ngaa war a informer wu da ngaa war a xam ba pare ñun xam nañ lépp xam nañ lépp xam lépp a tax ñuy jël suñuy engagement di def ay vidéo te maa ngi leen ci yàlla mi ñu bind maanaam asaka ji sax waxuñu ko ndax am na loo xam ne sañuñ koo wax sañuñ ko wax li ñu ci wax akus néew mooy li doomu aadama yi tollool seen xel tolloog ma man koo jàpp nga xam ne danañ ci mën di sukkandiku di xam fi ñu war a teg seen tànk mais am na ci loo xam ne kenn du ko wax ci ab rajo kenn du ko wax ci tele kenn du ko wax ci ay réseaux sociaux ñun ay mag yi jëmm lañ du fu ñaareel ba ci dëkk bi lañ dëkk bokk ak ñëpp liñ bokk Serigne Touba mbokkum ñëpp lañ ñi danoo war a wax. nit ñi wax ci dëkk bi ëpp ñu fi kenn baat dañ leen a dooleel ci dooleelul ñi ci des xam nga ab dëkk nag bu fa ay nit nekkee dëkk ba ñëpp di ay nawle danoo war a nawlonte waaye kii fii la bokk ak kee moo gën a nangam feek yooyu amul solo li na asla kulli naasin aadam wa huwa min tayni turaabi fa'lamu la Sëriñ Tuubaa wax ñëpp ci aadama ak awa képp la ñu jóge ci aadama ak awa ci banu suuf képp la ko yàlla bind te nangeen xam ne suñu borom subhaanahu wa ala wax na ne yowma laa yanfaw maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim ca suuratu sonra nga xam ne kon li ëpp solo ci àddina mooy ak jub gi xam ne moo tax suñu borom subhaanahu wa taala wàcc ñu fi ngir ñu tegu ci li ëpp solo àllaaxira mooy xol bu set wicc boo xam ne xol xalbin salim moom la alxuraan xol boo xam ne dara ci naa fett wala dara ci ak rëy wala dara ci bokkaale du nekk ci yow yàlla kese moo cay nekk boobu xol rek mooy jariñ aw sant jëriñut ëllëg yowmal xiyaam ab juddu jëriñut ëllëg yowmal xiyaam dara jëriñu fa lu dul jub gi nga xam ne moom la ñu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sant moo tax mu andi ñu ci àddina bi kon nag ab dëkk buñ ci nekkee booy wax sa xalaat ñenn ñi nga xam ne ñoom la ñuy bañ ñoom ñooy bañ nit kuy wax ndax li naan kuy aj day bañ ku teen ndax ñoom toujours li ñu nekk ay mbir la yoo xam ne bëgguñ nit ñi xam lan mooy réalité bi dëgg-dëgg réalité bi nag ñun ñii bokk ci askanu murit am nañ ci xam-xam ca dañ ciy wax suñu xalaat lu ñu fekk ñu jël dee ci dëgg moo gën dee ci ak naa feq na ngeen ko xam ndoxum Tuubaa mii na ngeen xam ne Serigne Cheikh yu Mbacke mi ko jiite woon xaw ma lu tax mu jiitu ko xaw ma intérêt boppam la xaw ma lu mu doon loolu mën lijjantiwu ko waaye li am solo mooy mbooleem taari njabootu Serigne Touba gi fi jiitoon yoon wi ñi fi fekkanteel ca yoroon ko bi ñu toogee dañ koo dëgërlaat waaye teewul nag na ngeen xam ne amoon na ñeneen ñu bokk ci yoon wi waroon a taxawal lu mel ne maa ur rahmati ci seen moyenu bopp am doole ji am kàttan ji am pexe yi ci defuñu ko defuñu ko mooy lan bëgg mooy la maa ur di génnee kus néew ñu man caa lekk buñ ko mënul xajamal yëf yooyu loolu xam nañ ci bu baax a baax ñu man fërlu ma Sëñ Cheikh Aliou fërlu ma kenn Sëñ Cheikh Aliou musuma koo gis xamuma ko xamuma yàlla mi ma tiim xam na ko yàlla rek a tax may wax waaye nag am naa ci ay ay preuve ndax biñ fi woote euh, déleton bii ñu doon wax tuubaa naan dañu yalwaanal tuubaa ndox maanaam di ko laajal addee ci misaal comme ni nu koy defee ci yeneen secteurs yëpp comme ay euh, Touba ca kanam ak ay nangam ak yëpp yi liggéey fi liggéey yëpp ni nu koy defee ba Serigne Cheikh Aliou taxawee proposé loolu Touba ay kilifa ñoo taxawoon carrément ban munta lekk ca maa ur rahmati danoo xajamal yëf yooya ndax man ñii am na kilifa yu ma woon ca loola doon ma ci def loo ab déclaration pour wax loo ma ne ma nee leen Serigne Cheikh yu li muy woote loola ci tey anuñ ci ëllëg wax leen loolu ndax. maa u rahmati bi intérêt boppam la te ñooña doon wax loola ci yoon wi lañ bokk ci ñu jege lañ ci la tax maanam ñuy wax loola dañ caa mënta dund na ngeen xam ne am na ñu nekk ci biir dëkk bi ñoo xam ne luñ fi bëgg a samp ci dëkku sëriñ Touba bii ngir sagale ko Serigne Touba am na ñoo xam ne ci tuubaa gii lañ bokk bokku ci askan wi nit ñëpp waaw te bunte muntal mos dañuy yàq loola loolu yéen ñëpp yéen a ko xamanoo audio yaa ngi ci yaa ngi il faut ngeen di bàyyi xel li leen nit ñi di wax ñun yàquñu saboote Touba gi fi leen juddoo suñuy bàyyi fi leen juddoo suñuy maam fi leen juddoo kon mënuñoo xajamal dëkk bi waaye nag il faut ngeen sukkandiku ci alquran ak sunna mooy bu dëgg jotee ñu wax ko maanaam ci ñëpp xam ne dëgg la moo xam mu laal moo xam mu bañ laa laal waaw toujours ñi ngi wax mboolem ñi tontu ak ñi ñuy attaques yi ñëpp ci biir wax ji mooy ñi nga xam ne dañ leen a laal danoo laal seenu góom képp ñenn ñi mënuñoo wax ñu wut ay xale jox leen xaalis di leen waxloo ci internet yi ak di leen di man mi léeg moo def benn vidéo ñu saaga ma ci wax ma ci lu ne du ma metti parce que man maa jël engagement di wax ñaareel ba yàlla mi ñu bind moom ñi di ñu fi jëlee sax waxtu wu nekk nit ñaa ngi koy wax lu ne bu tawul ñu ne yàlla ji daa war a taw bu taw ñu ne ndox mi daa bari bu banque yi jote ñu ne yàlla daa war a nangam bu nit ñi amee ni lu leen yàlla defal ñu yóotu la cees comme yàlla mi ñu bind di ñu fi jëlee dig ñu ay duma ëllëg dig ñu bànneex ëllëg moom la nit ñi faaliwu di ko sànni xeer man Moustapha mu jaamu yàlla bu simple bi bu ma sànni xeer du ma naqari te ñi ma koy def ñëpp samay nawle lañ yoo xam ne dañuy moste yëf ya ñi sëriñ sa ni reeree ka añee ka ndékkee jee ka nangam ñu leen may ay passeport di leen may kër di leen jox ay bee amee ñuy tukki ñoo leen di naa leen ko wax dal sama kaw na ngeen ma défendre ñun xam nañ la xew xam nañ li xew bu buñ leen di wax dañuy wax ngir laabirante dañuy wax ngir laabirante ñun ñëpp ay doomi soxna lañ kenn ku nekk sa waajur jaar na la fam la war a jaar doomi soxna moom ni ko waa Sénégal di jàpp weesu nga bokk ci askan wu ni warmaal jàng alxuraan jàng sa diine loolu la ñuy wax doomi soxna fii loolu lañ koy wax man nag li ma jàppe maanaam doomi soxna xëy na mooy kun war a warmaal mooy kin war a molwaal moo xam caam la sant moo xam mbaw sant moo xam sant ma di sant bu xasee nekk ab julit jàng alxuraan jàng diineem te di ko jëfe rek maanaam war nañ laa warmaal ndax am na ñu ni wormaal ñoo xam ne sëñ bi jànguñ diine jàngaluñ leen alxuraan yëruñ leen ca ñi leen wormaal ci Sénégal gi moo xam fu mën di doon ci tarixa yi kon nag na nit ñi delloo seen xel ca yàlla ci xam ne yàlla day dox ci dëgg ci dëgg la ñu doxloo na ñu dénkante dëgg te bàyyi jayante yeeg yëkkatante geeg ngir ay affaire intérêt àdduna ñun xam nañ di xew ci Tuubaa gi bu baax des fois nit ne ma sax yow de danañ la jël si Macky Sall dana la jël si yooyu yëpp ay xeeti wax la yoo xam ne ñu ngi koy gëmloo askanu Sénégal ba tax kenn ñi mu ta wax dëgg kenn ku nekk boo amee loola naqari nga di ko gàdd yéen da ngeen yaakaar ne deegu metti geeg cardiaque geeg feebar yu bon yi lan la du dara dara sababu ko li ko sabab leen rek la mooy naqar bi doomu aadama yi di jànkonteel ci seen xol ci munuñ ko wax ñenn ñi munuñ ko wax day dem ba explosé bu yàggee nag mën na leen a jural jural ñuy def lu ne gis nga Touba gii fan jëm ak ñoom moo xam si Cheikh Aliou démission na ma wax waaye gis nga Maodo Rahmat fa mu jëm danañ ko transféré faneen di leen bàyyi xel li ma leen wax ay yeneen i loxo yoo xam ne loxo yooya maanaam état lan la moo leen di dooleel te dooleel googu ñu leen di dooleel danañ ca sukkandiku ba fayloo ndox waa Touba te buñ leen tàmbalee fayloo ndox Touba duñ am ndox mu doy ndax ndox mu baaxoon mi ñuy wax naan baaxoon nga xam ne buñ juddoo ba moom la ñu jëfandikoo lu ñu doy ba ma xëyee ba léegi may wax ak ni samay ruba ne xelliwoon ca ndox mi nañ baaxut kon ndegam ruba ndox mi ne baaxut moom nga mun munta am mu doy ndox mu baax mënoo ci am mu doy parce que Touba dafa am loo xam ni gars yi dañ leen cee teg bët bëgg leen ko yàqal ca ba léegi taalibe yeewaguñ ci dañ leen di xeex il faut ñu comprendre loolu dañ leen di xeex parce que bu ngeen gisee daanaka weer yi yëpp Tuubaa ci ay problème la nekk ay wax yu ñaaw ay xeexante yu ñaaw ci biiru famille boo xam ne kenn waru leen woon a xamal dara ci ay nit koy def yoo xam ne tekkiwul dara kenn kontiwu leen kenn kontiwu leen ñu bëgg a jaxase dëkku Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne boroom ni mu daj ci àdduna maanaam man de man wóor na yàlla ak yonent bi sama bakkan a ngi lu neex waaye na ma def billahi wal qur'aanil aziim lu neex waaye na ma ko def waaw faatoo faatoog dund laa yemale ndax yàgg-yàgg da faatu yàgg moom loo man di def ci àddina tamit dangay ngay faatu da nga fiy jógee ca maanaam bu la rayee ci dëgg tamit sa jaan wàcc na bu leen ragal gis nga dee kenn du ko def ñaar yoon benn yoon la nit ñi di dee lii ñuy teg askanu Sénégal yi ëpp na metti na ci mënuñ ci dara état baa ngi def lu ko neex kilifa yi kenn ku nekk yaa ngay def la la neex ca kenn du wax boo waxee ñu lay woo di la jëm a koromp wala ñu woo dig la ay tëkku wala ñu lay boolee police ñu lay jël am na ñun fi jàpp ci biir Touba gi ñoo xam ay doomi soxna lañ ci ay kilifa ñoo nekk ci ginnaaw ñu leen jàpp ndax lan ànd ak état mais loolu sëñ bi état lan la defal Touba lu jar loolu Serigne Touba lim ñu defal sëñ bi lim ñu defal ci àddina xoolal tey jii tey kilifa yi kenn ku nekk ñu nekk biir Touba bokk ci askan Serigne Touba yaa ngi dawal oto boo xam ne tey rek mën naa tabax kër mën naa yor am mbooloo ay weer wala ay at ah loolu kan moo leen ko defal ku du Serigne Touba kon nan jàpp nan jàppale Serigne Touba ci dëkkam bii nan wormaal Serigne Touba ci dëkkam bii te bàyyi yëfi àddina yi ñuy dund amut solo xoolal kilifa yi fi jaaroon gisatoo fi kenn ci kenn ku nekk bàyyi nga sa waar woo xam tey nit ñaa ngi ci baaraam di ko nett lekk nangam nan fexe ba am way yooyu. am na lu bare bare lu ñu bëgg a leeral loo xam ne incha allahu taala danañ def vidéo yoo xam ne bu ñu ko bu ñu fi fan yu bàyyee incha allah wala gars yi jàppaati bàyyi ñu fi danañ def vidéo woo xam ne incha allah danañ ci leeral lu bare baree baree bëri loo xam ne taalib yi danañ ko gën a xam ci mbirum maa ul rahmati meeg wàllu dëkk beeg projet yi ñu fi war a andi muy échec ak lépp xam nañ ko dañ cee teg suñu tànk waaw ñi ñuy attaqué nag danoo xamut mais ne ñun ñun li wax information yi leer lañ ci am information yi leer lañ ci am man li ma leen di wax ni lu ma xam la lu xam na kon nag nan bàyyi xel loolu te bàyyi caaxaan yi ak fomi ci jaamu ji yàlla te day loolu li ñu yàlla jox ak li Serigne Touba liggéeyal dëkkam bii te sàmmal ko dëkkam bii am na fi ñoo xam ne fi mu ne dañ leen ay courant direct bu courant coupé du du du du manque courant ñu de neexal ña leen defal ci ay kilifa lañ ci dëkk bi te pourtant ñoom ñëpp ñoo yem ci Serigne Touba rek am na ñoo xam ne considéré woon amuñu lu lekk ci li ñu defal yoonu murit maanaam ña am lu lekk defaluñ leen ko xay na te lépp li ko waral manque organisation moo ko waral nan leen dellu ci yàlla ca bàyyi caaxaan yi ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah